ba mu seddi guyuwaay yéen gi ñu ne déeta ca diwaanu Mermoz foofee tamit benn xale góor bu tudd Papis Niang la fa assassiné benn xaritam moo ko rey deux cent cinquante mille moo leen boole yéen kaay gi ne ca diwaanu jàmm gën a foofee am na benn xale góor bu tudd Xaban Dieng ñu naan ko gabu moom tim dañu ko assassiné dañu ko rey ki ñu jàpp moo ko rey Assane Kamo la tudd Assane Kamo moomee nag ak mbër mi di Maama la ñoo yéen kaay ne na seexam boobu di Maama Lamine moo a xam ne moom la ñu génn waaye nag comme nga xam ne moom la ko mbër bëri maanaam guddi gi du ñu nangu kenn ku jege seenub quartier xaban jeng mi dafa ñëw naka bëgg ak si kër ñoom maama Lamine loole la Assane Kama mi nga xam ne seexu mbër mi nekk fa lànk kandaare bañ koo nangoo loole nag moo tax jàppante am seen diggante ba Assane Kama jël biteel toj ko daal di ko koy jàmba mu sedd guya yéene kaay gi du l'Observateur Vox Populi ak L'As Quotidien ak Enquête nee nañu Fatou Kiné Gaye mii nga xam ne dañu ko rey fan yi nga xam ne moom la génn ca benn waaye bu ñu wax contrat yi waaye nag Xaasim Ba moomee daal moom ak ki ne kay ay collègue lañ ñoo bokk fenn fu ñu liggéeyee journal bi nee na Xaasim Ba mii nga xam ne moom la ñuy wax ne moo ko rey maanaam superviseur la bu xëyee moo doon andil ki ne kay xaalis bi bu demee timit ba ki ne kay war a wàcc mooy jël si xaalis bi journal bi nee na li nga xamante ni moo ci am nag nee nañu ki nga xam ne mooy Xaasim Ba lu toll ci fanweer ak juróom ñaar ci ay paaka la ko jamate waaye nag moom Xaasim Ba ci suba si dafa ñëw ci ki ne kay na ko man damaa am ngénte te nag damaa soxla lu toll ci deux mille franc nga daal di ma koy lebale ki ne gay mii nag daal di ba tëddal sa naaj wa moom xaasim ba mu daal mer ba futu si si daal di génn place bi daal di waaye nag ba mu demee ba ngoon jota si la jëlu paaka dikkata bi mu dikkee nag si la ko jàmmate ay paaka ba mu seddugu yo nekk moom xaasim ba dafa amoon nag ngénte waaye nag bi mu defee nag li nga xam ne mooy ñaawteef gi bi mu génnee nag dafa envoyé message ki nga xam ne mooy jabar je na ko problème bi réglé wu na xaalis bi disponible na ngénte li dina neexa journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi ñoo gis message bi bi ci téléphone u Xaasim Ba yéene kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de sall njombi gi jamono ji bëri na lool ci ndakaaru nee nañu Dakar jamono ji deret jàng fii wàll journal bi nee na en tout cas tamit ñàkku kaaraange am na fi lool ma ngi ci le quotidien yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na nag coow li nga xam ne moo am ci wàllum élection député yi jamono ji nag jéggi na dayo yéene kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu Yewwi Askan Wi du bokk ci élection yi ndax nag dafa def njombe ci liste nationale bi ndax nee xale bu jigéen boo xam ne Anta Touré la tudd moom dafa nekk ci liste titulaire bu yeewu askan wi nekk tamit ci liste suppléant bu yeewu askan wi yéen kaay gi de l'Observateur ñi nga xam ne ñooy waa coalition yeewu askan wi ñoom tim nee na ñu Benno Bokk Yaakaar ci boppam moo wërta bokk ci élection yi ndax li nga xam ne moo jëm ci wàllum parrain Benno daf ko ëppale ginnaaw loolee nag Benno respecté wuñ li nga xam ne mooy parité bi ñi nga xam ne ñooy waa coalition yeewu askan wi ñoom nag jamono ji li ñuy sàkko maanaam ñu daal di notifier jox ab këyit bokk yaakaar wax leen na leen yéen waru leen a bokk ci élection yi te nag waa yeewi askan wi ñoom nee nañu waxtaanuñu ay waxtaan ba juboo ñu ko tey ñu ko lëkk ñoom Ousmane Sonko nee ñu nag li ñuy sàkk mooy élection yi maanaam app bi nga xamante ni moom lañ ko jàpp ñu naa di ko fay amal njaga si la xelam màcc lool ci lu jëm ci wàllum élection expert la ci lu jëm ci wàllum élection yéene kaay gi na njaga si la nee na nag il faut ñu def attention ndax nag inéligibilité ak irrecevabilité ñaari moo yi bokkuñu te nag ñi nga xam ne ñooy waa yeewi askan wi dañu dañu leen a wax inéligibilité kon nag loolee la ñu leen wax loolee mënut a yàq liste nationale bu yeewu askan wi njaga si la expert électoral mooy wax du samay kàddu yéen a kaay gi di réew mi ñi nga xam ne nag ñooy waa aar Sénégal nee ma ñoom Thierno Bocoum ñoom nag nee na ñu baare yëgoo ak combine bëre loolee ñoom du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg ñoom Thierno Bocoum la ñuy sàkku daal maanaam yoon lu bi dal ci kaw benn bokk yaakaar waaye tamit dal ci kaw yeewu askan wi ki nga xam ne nag mooy Thierno Alassane Sall bokk aar Sénégal nee na nag bu ñu waxantee dëgg appliquer loi bi rek rek rek yam ci appliquer loi bi ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar ak waa yeewi askan wi duñu bokk ci élection député yi yéen kaay gii di Sud Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne nag ñooy waa conseil constitutionnel ñoom nan lañuy def ba lijjanti mbir mi Ndiaga Sylla expert électoral nee na mbir mi nag yomb naa lijjanti maanaam mbir mi nañu ko delloowaat ca cëppaandaw ga maanaam nag nañu jël compteur yëpp yóbbu ko zéro yóbbu ko zéro Aliou Tine moom nag jamono ji ma ngi woon ñi nga xam na ñu waa conseil constitutionnel la ngir nag ñu fexe ba ak dal am calmer le jeu loole la Aliou Tine bëgg ci waa conseil constitutionnel la yéen kaay gi de la turbine nee na njombe am na ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci coalition Yewwi Askan Wi ñëpp a def ay njombe ñaari coalition yi ñoom ñaar ñëpp a fute yéen kaay gi di sunu làmb ñu koy fekk fa Ama Balde ji ginnaaw